bisimila moo ko waa Leewtoo TV nu leen nuyu leen gërëm leen sant ñëw ak nag si revue de l'arène bi si journaux yi nga xam ni ñoom nooy wax loo xam ni lépp làmb la muy sunu làmb record Leewtoo TV ak Leewtoo point net nu ñu tàmbaleeg si sunu làmb sunu làmb te nag dañoo xëy dalal ki nga xam ne mooy Yékini Junior mi nekkoon écurie Lutte Ndakaaru te mu nekk léegi Dóor waar moom daal dafa xëy di défier ki nga xam ne mooy Sa Thiès nee na daal Sa Thiès si na nee na combat bi nag du moom moo ñoo ko soxla nee na pare na pour bëre ki nga xam ni mooy Siteu ak Gouye Gui su fekkee ni Sa Thiès bañ na combat bi sunu lamb aussi mu ni xamal ni Fallou Ndiaye bëgg na tëgg combat bi dox diggante Reug Reug ak ki nga xam ni mooy Malick Niang mais nee na daal Reug Reug moom moo bëggul combat bi parce que nee na Reug nee na ko bëriwuma euh, ak Malick Niang tey suba waxi noppi nee na daal ki mu bëgg mooy Papa Sow Gouye Gui wala loolu la Fallou Ndiaye wax ci sunu làmb Ama Baldé tamit ñëw na ci journal bi nga xam ne mooy sunu làmb bi réunion bi amee week-end bii passé nee ñu daal kaawu Ama Baldé dafa meñ dafa bañ bëre ki nga xam ne mooy tafaatin ndax bu mu bañee signé contrat bi nga xam ne Pape de Faat jox na ko tey ni moom ci journal bi dafa xëy di ñu xamal ne waa kaawu Ama Baldé nee ñu cachet bu ñu leen fay digganteem ak tafaatin dafa tuuti nee na pour na Pape de Faat yokk lii nga xam ne mooy loxoom pour mu mën a bëree ak tafaatin ñu jógee sunu làmb dal ci record ci xalima Abou Ndour foofu ni nga fa dalal Siteu depuis les États-Unis Siteu nee na Abou pare na pour bëre ak Papa Sow wala boog beneen adversaire nee daal nekk euh, ñëpp la fi nekkal xaarul benn mbër mbëri daal ku pare bu pour moom rek moom pare na suñ jógee si record nu dem si Leewtoo point net Leewtoo point net ñi xamal que Bombardier mi ngi France ak Pape Diak nga xam ne mooy magam mais nag c'est juste pour régler ay problèmes personnels demul pour entraîner nee ñu nag am nañu yaakaar semaine bii ñuy dugg si bu Bombardier wan na yibbi si pour mën a dellu pour dem fi nga xam ne mooy États-Unis préparer combat am ak combat MMA bi mu war a amal le 17 décembre fii si Sénégal si stadium Marius Ndiaye suñ jógee si Leewtoo point net ñu dem si Leewtoo TV Leewtoo TV nag dafa dalal foofu nag waxtaan bu yaatu ak ki nga xam ne mooy Mobile 2 bu mu jógee États-Unis Mobile 2 wax na lu bëre bëre si écurie bi nga xam ne mooy Grand Yoff mbooloo nee na nag perform nee na bilan bi nga xam ne bilan bu catastrophique bi nga xam ne écurie bi moom la am nee na dara walulu ko lu dirigeant yi nee nag mbir su la ko dénkee ba nga xam ne euh, yaa ngi fay def ay résultats yu baaxul da war a delloo li la joxoon Euh, dirigeant yi nga xam ñoom noo yor écurie de lutte euh, écurie Grand Yoff mbooloo dañoo war a démissionner jox ñi nga xam ne mën nañu ñu doxal nee na tak moom pare na nee na ñi xalaatoon ne dafay daw dafay dem États-Unis pour daw loolu nee na loolu moom xalaatu ko ndax nee na mbër la te mbër làmb mooy mooy liggéeyam nee na pare na pour bëre képp mbër bi nga xam ne promoteur jox na ko pour mu bëreek moom loolu lañ leen indi loon si revue de l'arène bi di leen jox dig daje suba incha allah. mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu leen gërëm di leen sant ginnaaw jàng euh, revue de l'arène bi nu ñëw ak yéen si jàngatu arène bi ma ànd seek Birame Gningue Birame maa ngi lay nuyu waaneekuma maa ngi lay fay bu baax di nuyu mbokki Leewtoo TV yëpp ak mboolem ñuy suivre ci internet bi waaye tam di la nuyu di équipe bi yëpp leen ñaanal jàmm di ko sàpp ci yéen amee na euh, biram ni ñëw nag si sunu laam sunu laam te dafa xëy dala ki nga xam ne mooy Yékini Junior Yékini Junior moom nee na dafa ñëw daal pour lancer ay défi nee na pare na pour ki nga xam ne mooy Sa te nee na combat bi moom moo ko bëgg te Sa tamit moom moo ko bëgg nee na combat amateur kon seen combat dafa war a mun taxaw nee tamit moom pare na pour bëre ak Siteu ak ki nga xam ne mooy Gouye Gui biram waaw xam nga nekkuma comme ni nga ko waxee rek xam nga Yékini Junior mu ngi nekkoon écurie Ndakaaru waaye bu fa jógee tam dem ci écurie Dóor waar eh, ne fa tam xam nga mbër mm, lii sa gàllaaj mooy bëre comme ni ñuy naan eh, kii eh, képp koo xam ne wax mooy sa métier boo waxulee dafay mel ni bokkatoo ci métier ma donc Yékini Junior tam dafay doon mbër moo xam ne wax dëgg si yàlla bu nee pare na ngir Sa Thiès ak keneen ku mënti doon tam loolu dañ ko koy nangul parce que tam dafa xam nga tam toog bëréwoo euh, fekk ne yaa ngi ci làmb ji dafay mel ni existé to ak euh, réalité yi xam ci xew ci làmb muy télé rajo jomin seen euh, boo bëréwulee dafay mel ni daal dañ la fàtte ñi nga xam ne ñoom ñooy bëre ñoom la ñuy gën a considéré que ñoom ñoo ne ci arène bi te moom am na lu mu fi def il n'a pas vraiment amul amul kii daal pour mën a toog noonu rek bëréwul di xaar ban adversaire te Sa Thiès adversaire am la buñ ko waxee wax dëgg si yàlla. ko na mbëri ñëkk def calaf fii nii si si Sénégal maanaam calaf Gaston. waa gis nga ak ak lam fu def nga xool ne kii bépp jël buñ ko fa daan tam dangay xool ne jël bu normal na maanaam erreur. parce que làmb moom boo juumulee doo daanu donc mu bokk ci ñoo xam ne dañoo am lu ñu def ci làmb ji mu toog noonu tam di xaat daal ndeykumba li ma ci gis daal mooy buñ ko joxee Sa Thiès ku dul Sa dafa war a bëri ak moom loolu daal am nañ ci am na ci kii daal. Euh, biram suñ jógee nag si nga ki nga xam ne mooy euh, Yékini Junior nañuy dem euh, si Fallou Ndiaye journal mi nga xamal ne Fallou Ndiaye nee na mi ngi dox combat am ak ki nga xam ne mooy Malick Niang mais nag Fallou Ndiaye nee na daal Reug Reug da xamal ne ko bëréewul ki ak ki nga xam ni moom mooy Malick ñaa nee daal lañ ko jox Papa Sow wala guy gi mais Malick Niang moom baax na waaw xam nga loolu tam dafa am baaxu làmb la day kumba parce que baaxu làmb mooy tey dañ lay indil benn adversaire ne la yow bëreel ak kii nga ne kii gënalu ma kii moo ma gënal waaye ki nga xam ne moom mooy tëgg aussi day xool lan moo ko gën a arrangé ci soit amateur yi lu ñuy wax muy combat amateur mais xam nga ne diggante Malick Niang ak Reug Reug combat amateur la combat la boo xam ne wóor nañu wóor yàlla dafa imposé wu mais Reug Reug am na plein droit ne man bugguma kii kii moom ma gënal mais kii moom ma gënal ça ne veut que loolu noonu lay demee jimee ba dem mën naa am mu tombé mu jox ko ki nga xam ne moom la laaj waaye tam mën naa am moom Reug Reug mu rétrogradé retourné jël ki nga xam ne moom la ko promoteur bi di proposé Ndeye Coumba est-ce que yaakaar nga ne Reug Reug ak ki nga xam ne mooy Malick Niang Reug Reug su ko jëlee dafay rétrogradé je pense que Reug Reug Malick Niang war na mun combat boo xam ne adversaire lañu war na mun nekk combat bu neex waaw jërëjëf xam nga boo xoolee rétrograde bi mooy maanaam moom mu xoolaat boppam ne non waruma bañ Malick ñaa bàyyil ma dem jëli ko donc foofu foofu mooy doon wàññeeku bi mais su dee diggante ñoom ñaar moom combat bu imposé wu dafa war a mën a nekk te dafa nekk à jour. Euh, Birame yaa ngi wax combat bu imposé combat bu euh, bu nekk à mais combat bi nga xam nag moo nekk à jour te moon intéressé euh, yi nga xam ne mooy amateur yi muy diggante Ama Baldé ak Tapha muy combat bu bëri coow combat bi taxawgul mais combat bu bëri na coow trop parce que suñu fàttali ko vendredi bi passé si la ñaari mbër yi waroon jël si jël avance si kër Pape Abdou Fall mais ne dem ba si biir Ama Baldé ne Jules Baldé mi waroon jël avance bi na dellu si waat ci kër gi bu mu jël bi kër Ama Baldé mais ba léegi daal dafa mel ni ñoom pare wuñu pour bëreek ak ki nga xam ne mooy Tapha Tine nee ñu daal léegi waxtuñu sax ay waxu adversaire mais nañu cachet bi dañ ko yokk muy lu yéeme biram waaw loolu xaw naa yéeme tuuti mais ci cadre làmb day kumba dafa mel ni euh, juboo sax dana am ci sama euh, xalaat bu gàtt li tax ma wax ko mooy euh, wat gaal yégoo ginnaaw famille baa ngi waxtaan waxtaan nañu samedi waxtaan dimanche am nañu yéene ne dinañu bëre mais dañu ne kon nañu yokkal cachet bi bu ñu demee ba cachet rek moo ca des ak Pape Abdou Fall li ma ko xamee ak làmb ji fu mu toll dama yaakaar rek négociation yi jubóo dina ci am daal te loolu tam mënta ñàkk ci làmb xam nga tam marchandise la da nga naan man lii laa mën a bëree kii ne la déedéet lii laa la mën a fay ngeen di waxtaan di waxtaan ginnaaw ñu ngi ci waxtaan daal nañu dundee yaakaar parce que combat bu war a nekk la combat bu war a nekk la amul combat bu ko gën a normal ci combat yi ci arène bi parce que Ama Baldé Tapha Tine am fu ñu jaar dañ ko war a leeral leeral bi mooy lan Ama daanaat ko wala Taphatine jël revanche am daan ko. Euh, Birame est-ce que foofu waxtaan war na fi mën a nekk parce que Ama d'accordoon na cachet bu ñu ko ñu moo tax diggante vendredi samedi ak dimanche mun a changer avis bay laajaat encore cachet pour nu dollar ko cachet boobu ñu ko ñu koon fay d'accordoon na si. xam nga moom bu ca d'accord bu fekkente ne ñaar wala ñett ci famille bi dañ ci d'accord am ñeneen ñoo xam ne d'accorduñ ci ba ñu arrière waxtaan ci seen biir bu ñu waxtaanee waxtaanu biir nekk xam ne nag carrément lii moom. bu dee juróom la ñuy fay bu ñu sañoon am fukk léegi nag bu ñu sañoon am fukk boobu nag dafay imposer wu fukk boobu nag est que promoteur bi di leen fekk si loolu moo tax ma yaakaar ne euh, tôt ou tard mën na am mu jël ko wala beneen promoteur mën naa fële fële xool dégg la muy fay fayeeku la mu laaj mu jëkk rek fay ko ko parce que am na fi amaat fi ci làmb loolu moo tax rek ma am yaakaar ne euh, juboo daal mën naa am ndey kumba nu xool donc fu wànnee mu jéggi gëtëm euh, biram nu dem nag fi nga xam ni mooy record ndax record tey dafa dalal Siteu si micro Abou Nour na def mi ngi nekk depuis États-Unis euh, nee na si euh, micro Abou Nour nee na moom daa pare na pare na pour bëreeb ak Papa Sow pare na aussi pour beneen mbër même su dul Papa Sow sax pare na pour bëree ak beneen mbër xen tamit mbëri tamit dañuy bañ si saison blanche moo tax instant yi ñuy génn si journaux yi di wax nekk di wax yan adversaire nga mën bëreel biram waaw xanaa d'accord ci li Siteu wax ndax tam làmb ji toll na foo xam ne moom dëgg dëgg dëgg dëgg euh, bu dee da nga ne du ma bëreeg diw du ma bëreeg diw bu loolu xawee bëri bu rang boobu bëree rek wala list boobu bu bëree boo wattuwulee dangay anne année blanche te macha allah mbër yi dañoo yokku écrit yi yokku te journée yi yokkuwuñu parce que euh, vraiment cinq jours yi ñu amoon ci làmb ji wala ci euh, année bi moom la am ba léegi yokkuwul te écrit yaa ngi yokku yaa ngi yokku ténor yaa ngi gën di ñëw kon Siteu am na plein droit xoolal. man nag du ma toog fii naan damay en blanche damay xool bu fekkee ne jox nañ ma kii ma bëreeg moom même ku dul kooku ma bëreeg moom loolu daal dama jàpp ne bu mbër yëpp defoon noonu yaakaar naa ne combat yi dinañ gën a dox. nu dem nag si Leewtoo point net Leewtoo point net ni ñuy xamal ni euh, kii nga xam ne mooy Bombardier ak Pape Dia ni ngi ni ngi sa France mais demul nag pour entraîner nañu dem rek xëy na pour des affaires personnelles après Bombardier si nee nañu dina yibbi si waat fi nga xam ne mooy Sénégal avant muy delluwaat fi nga xam ne mooy États-Unis pour préparer combat MMA bi nga xam ne moom lay amal di set décembre fii si Sénégal biram waaw loolu moom dafa dañu ko koy ñaanal vraiment mu dem ak jàmm dikk ak jàmm parce que xam nga koo gis da am say affaire personnelle te Bombardier nag c'est l'ancien roi des arènes et deux fois roi des arènes donc dañ koy nangul aussi vraiment mu mën a di dox ci àddina bi nag di dem di ñëw ba pare vraiment di jiite ay business am te xam nga ne ku xam Bombardier boo seetloo mooy borom bu guddi guddi mbuur loolu loolu slogan la bu doy waar xëy na nit ñi nag ci jàngat bu baax ci li ma yaakaar mais na nga xool ne lu mu guddi guddi lépp lu mu am da ko delluwaat mbuur kon moom tam bu demee États-Unis ànd ak magam ñu koy nuyu au passage Pape Dia suma xarit parce que ñoom tam euh, li ñu naan mbokk ndey koy jur xam nga nit mbokk ak moom mu doon sa mag ba pare doon sa ménager ngeen juboo juboo boobu dañ leen di mbokk waa Leewtoo TV si kàddu leen tàggoo leen jox dig daje suba incha mais balaa boobu may nuyu sama yaay mais soo nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Dadi Gueye di nuyu Astandine depuis Italie chéri Khadija Diallo depuis unité 26 di nuyu samay doom maam Diarra Penda bébé Fallo bébé Rokhaya junior yaa ngi si biir ak ki nga xam ni moom mooy euh, Eva Diallo di nuyu aussi HFN naan ko excel ak jàmm ndax fan yëpp xam nga ni dafa tawetoon di nuyu ko ñaanal yàlla mu jóg si feebar bi mu nekk ñëwaat man muy euh, Abou Gueye depuis États-Unis borom jàmmagan doomu nay Siteu fete joyeuse mooy fête anniversaire am samedi bi naan ko dundal nit ku baax nit ku yëg nit nit koo xam dafa am teraanga naan ko dundal ba sa bay de ba sa bay de baawaa yaa xam lépp loo xam mi ngi xol yal la ko yàlla defal euh, du aussi Aïda Diouf si biir sa maquillage bi biram waa jërëjëf Ndeye Coumba xanaa euh, euh, wax rek yàlla yàlla nangu sa ñaan yëpp yi nga ñaan ci ñoom Babacar ak ñoom Aïcha ak ñoom Insane vraiment waaye nuyu DG bu baax a baax Pape Thialis ak ki nga xam ne moom mooy monsieur Diaw ñu baax waaye nuy seddoo euh, ñoom Ousmane Kitaan yàgg ma taalibi Cheikh Béthio Thioune vraiment ñoom monsieur Fall monteur bi ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar waaye itam nuyu waa Ngunjaan yëpp nag Pay Joor Saamel Cangaay Mbour waaye jàkk ak mbooleem lu xeetu ñoom Ibra ñu ngi koy nuyu waaye ñaanal suma jarbaat Binta Sarr xam dama ko maye dimanche vraiment di ko ñaanal daal sëyu jàmm ah, euh, di ko wax rek euh, mu góorgóorlu te àddina noonu la waaye professeur Ibra Sène nuyu nañ lu baax depuis Michigan waaye tam ñoom Ibra Astou euh, Barteb Ad ñoom Mod Badiane ñi ne ci Italie di ñu suivre ci Leewtoo TV waaye ñu ngi leen nuyu baax a baax waaye di jaajëfal ñëpp nag di ñaanal ñëpp jàmm daal lay kumba Zé